Euh, salaamaaleykum sama mbokki internet yi euh, j'espère que yéen a ngi si jaamoo bu baax bon di la ñaan ngeen amee commenté partagé abonné wu tamit pour suma publier incha allah rek ngeen teel ci mën jot di la ñaan ngeen abonné bu baax ci Lu Bees TV bi aussi ngeen bës ci cloche bi pour suñu publier rek incha allah mu mu ngeen euh, jot notification bi ngeen mën a déglu suñuy waxtaan te nag on va parler d'infidélité infidélité mooy nga am jëkkër ba nga am jabar mais yamul ci yow bëri na ci jigéen ñi mais aussi on peut dire ci góor ñi la ëppee donc euh, moo taxoon tey ñu ne ñu def ci benn bref autant que message yi tout le temps doy revenir parlons d'un ci góor yoo xamante ni fidèle lu ñu mooy góor yoo xamante ni yemuñu ci seen i jabar góor yoo xamante ni même boo leen wàccee loon àdduna di leen jox n'empêche ñuy dem xooli leneen donc euh, naka lañ leen di canaliser et tout ça donc man conseil bi peut ci jigéen ñi lay njëkk jóge après ci góor ñi parce que je me dis bu dee sax suñu jëkkër mu ngi doxaan wala dara mën nga def méthode boo xamante ni mën na bàyyi mais bu dee jigéen jigéen c'est la c'est c'est une maman waaw jigéen lañ naan yaayu nation bi donc bu fekkee da nga am soxna boo xamante ni euh, yemul ci yow moom vraiment amuñu ci solution donc euh, juste dee sa xol may na la nga baal ko au cas contraire moo nekk ci boppam est-ce que amul fasul yeneen bàyyam est-ce que fasul day reculer waat te di jàpp di jàpp bon man je conseille même nit yi ñu bañ sax di laal foo même pas chercher parce que ki cherche trop boo jëlee téléphone xale bu góor bi di ubbi di message foo jaar dañ ci gis lu la neexul léegi nag boo jotee ci lu la neexul à force nga koy jàpp ku ki bu demee ba xàddi dalay naan lu ma neex laay def te jigéen bu demee ba egg stade boo xam ne jëkkër ji du koy naan lu ma neex laay def mënuloo ma dara wala yaa fi téye sa bopp vraiment respect bi dañ na donc je vous conseille vivement ngeen éviter parfois mën nga ko jàpp bu mu xam ne jàpp nga ko nga maye patt di ko seetaan ñoom moo leen di metti parce que du ñuy bëgg nga wax du ñuy bëgg xam lan moo nekk sa bopp du ñuy bëgg li neexul nag mën nga dugg sa ne nga jooy lu nekk sa xol yépp nga génnaat tu je te concentre sur toi toppatoo sa bopp toppatoo sa joxaat naa lu ma soxla aw ko sama kër sama jabar jongewul sama jabar elle est pas présente sama jabar mënul lii man yaa may daane tôt ou tard dinañ ko def ñaareel ki ngay takki te boobooy gën a metti te ki ngay takki tamit du la respecté ndax ndax dina xam dina xam yu bari parce que y a avant et après nii nii début mariage ku nekk jikkoom jikkoom bu bon këram la koy bàyyi bu ñëwee amour lay indi ngeen tase fenn waxtaan wax wax ju neex sa bopp yow xale bu góor bi ëpp nga ne kii mooy waaj waaye boo leen demee ba dëkk dina la wandoo di yeewandoo jikko yi di tasi ci benn kër après neneen lay demee léegi nag boot yi day génnaat donc euh, ñun cee war a bàyyi xel bu baax nit da ngay sa jabar même booy doxaan mënuñu tere kenn mu doxaan mais ngeen nëbbatu nga am respect ci sa soxna booy doxaan nga jël sa téléphone boo demee ba sa buntu kër journée bi yëpp boo liggéeyee jee di waxtaan ak sa gel boo ñibbisee ba sa kër baal ma ci wax ji nga toog sa kër nga ko nga ne ko maa ngi sama kër ba suba incha allah nga déglu ma ku supprimer say message supprimer li ngay def nga respecté sa jabar même bu dee yaa ngi dox mais jigéen kenn du ko toroxal tu laisses les messages yoo xamante ne dafa salté sa jabar bu la messager wala bu la wooy balaa nga koy rappeler yàlla xam. nga jël sa keneen teg ko ci kawam te du jàkka du église je t'aime tu leen boole après ba sa jabar ci souffrir te moom moo nekk nekk sa arrière gérer kër gi gérer xale yi toppatoo bu fekkee sa wetu yaay la ne yar doom yi bu mu taajal la aj taajala reer def lépp en retour yaa ngi am keneen koo xamante ni defaralu la ci loolu dara nga koy dawal xaw ma naka lañ koy waxee safra ak mawra <laughs> xaw ma naka lañ koy waxatee donc di ñaan ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax donc euh, vraiment nañ ci bàyyi xel bu baax jabar danga koy suturaal taxawa taxawu ko nekk ci wetam te jigéen bu bëggee bëgg na bëgg di bañ amul fenn amul fenn waaw léegi nag ñëpp dañoo dem ba dañoo ragal sëy parce que dañuy naan sëy da ngay souffrir effectivement on fait que souffrir parce que góor ñi dañ lay woon loo xamante ni moo la ciy dugal la amour présence mbëggeel et tout dem ba ci biir am beneen jikko mën nga am droit ju doxaan mën nga nekk am doxaan ba kontaan mais nga def lépp ci respect ngay valoriser sa jabar di ko yëkkati dalal xelam mais moom man je préfère loolu moo gën ngay ñëw nit dina demal lu nekk dina def la lu nekk yow nga ñëw di ko di ignorer di defante ak moom et tout après léegi nga jël ci biti koo xam ne du jàkk ak du église mën ko amour présence di ko neexal bu la bloqué sax nga mer di ko woo téléphone di ko toog sa jabar mun na la mer li jënti woo ko ah parfois sax mun naan moo la arrangé parce que dafa mën a woote dafa mën message donc vraiment góor ñi foog ñu lu ci loolu foog ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax vraiment di leen ñaan ngeen aimé commenté partagé abonné wu tamit pour suma publier rek incha allah ngeen tel ci mën jot merci